dina ko ba tëdd ca suuf moom it sursa aane wàllum foqale suuf moom ci Sénégal gi lée jarul sax ñuy organiser ay concours ak mel de pour xam kat moo jël bee jaru ko parce que député maire kër Samba Kandé xalil na jël nga kubbi jël nga kubbi de cent vingt allahu akbar laa ilaha illallah ca yéen ge xalil Ibrahima waaw am na fa cent mètres carrés tëgës lëf ca Cambérène ge fa dix-sept neuf soixante et un mètres carrés ca Pikine ge jaa ngeen deux mille huit cent dix-huit mètres carrés waaw ci ginnaaw armeel ya waaw moo tax population ba fipp lii doy na waar te garaaw